sure we get your your WhatsApp. You know, if you did not get the prior one, you did not get the prior bakaras, you understand. Then let us know. Inshallah, we will send it to you. So I think ayah number was it? Or I think let's go to ayah number is better. so aaya number 83 in sura baqara yàlla nee na wa id axadna ba ñu jëlee mithaaqa ñu jël seen waat bani israil ñoom bani israil laa bu leen jaamu illa allah ku dul yàlla wa bil walidayni ihsaanan nga tàmm di joxe sa waajur nga jox leen seen àq seen gëdd wa dil qurba ak ñi nga xamante ne ñoo leen jege wal yataama ak ñi ñàkk wal masaakiin ak ñi nga xamante ne ñoom amuñu ni ñu jotee seen ginnaaw wa quulu linnaasi ngeen di wax ci nit yi xusnan ay kàddu yu baax wa aqimu salaata ngeen di taxawal julli wa aatu zakaata ngeen di joxe azaka summa tawallaytum gannaaw loolu yéen banu israil gannaaw bañ leen waxee loolu da ngeen a weddi illaa qalilan ba mu des lu ndaw ci yéen minkum wa antum mu'ridun ngeen daal ji ngeen daal di turn aside ngeen daal di bañ a wa iz axadna misaqakum ba waat ci yéen ñu jël kàdd ci yéen tamit gannaaw loolu laa tasfikuuna diimaakum bu leen tuur seen deret bu leen rayante seen biir xam nga rayante rayante ba muy ñëw ana ñu déglu saa waaye moom li ñu expliqué dafa kii ah ñu ngi wax kii bi de football bi la ñuy wax ah football la. pour loolu yërëm la gars yi di wax nii ah loolu yéeme na di oh, ah léegi xaaral nag ñu déglu kii moom mu ne ndax oh, ndax ah ah dafa yéeme de ah dafa yéeme wallaay mbiri yàlla booy si ñoom demee noonu booy si léegi léegi da ngay wax gars yi duñ la nangoo déglu booy si dañoo war a nangu déglu mais sérieux ah bil ni nga xaj de la booy si di wax nii di nañ ko soboote soboote soboote booy. building foofu laa leen fekk ñu ngi seen digga yi di xool. ah loolu yéeme na sampali mais kii mënul dara kii da daaneel lii yëpp daf a daaneel sax suuf ba si bopp. ah <laughs> waa ji la leen fekk sax buuba si foofu mu ne mu ne. Eh. ah booy si loolu benn aaya dong la de dafa mel ne benn aaya ngeen ko bëgg a dagg wala. ah de man kay li ma ciy jaaxal mooy ñun bu ñu waxee benn aaya bu fekk benn aaya de lañ defagum bu fekkee benn aaya doy na kay ñu bàyyi ci benn aaya ah ñu def beneen aaya waaw léegi kon ñu def beneen aaya ah waaw kay loolu la ñu waroon a. waaw jeex na five aaya waaw kay jeex na jeex na alxuraan la ñuy déglu ñun ñëpp. waaw léegi ba id axadna ba ñu jëlee misaaxakum seen kàdd la tasfikuuna bu leen tuur di maakum seen dret maanaam bu leen rayante seen biir wala tuxrijuuna te bu leen génnee anfusakum min diyaarikum seen mbokk yi ngi leen di génnee seen dëkkukaay maanaam soo xoolee tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo am dëkkukaay boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp gën naa tuuti li mu daanoon a nekk léegi loolu dañ leen summa aqrartum ba ngeen nangoo wa antum tashhaduun yéen ñëpp yéen a seede loolu summa antum haulaay gannaaw loolu yéen banu israil da ngeen tàmbale taqutuluuna anfusakum ngeen rayante seen biir donte yéen yéen a bokk sax benn diine da ngeen daan rayante seen biir kii dafa daan bañ doomu kële xam nga banu israil ñoom ñoom fukki xaaj ak ñaar lañu nekkoon da nga gis koo xamante ne moom xaajam dafa bañ beneen xaaj ci kaw loolu mu rey rendi foofu ñu la tamit daal di gis ne yu jot na ñoom it ñu rendi ñii di génnee fi ñu waroon a génnee loolu moo tax yàlla sunu yoon yónnee na lu bari ci ñoom ay yonente ak ay kàdd loolu tamit ngeen nekk di reyante seen biir ngeen di yokk seen baakaar ba pare ngeen di yokk li nga xamante ne moom la yàlla rëbb leen loolu moo tax maxduubi rëbb bi leen yàlla wax ci suru Faatiha mi ngi nii dikkaat na léegi nag bu leen dëgg ju duggee ngeen lànk ngeen bañ ko bu fekkee ne loo xamante ne wér na ne lii lu yàlla daganul la ba tey ngeen dugg ci afa tuminuuna bi baadil kitaabi xanaa da ngeen a gëm lu ndaw ci alquraan gi wala da ngeen a gëm lu ndaw ci li yàlla yónnee minal kitaabi wa takfuruuna bi baad waaye tamit ngeen weddi li ci des fa ma jazaau ah ki nga xamante ne moom la ñuy fayee loolu fayam bi man yafalu dalika minkum ki ko def ci yéen illaa xisyun fi lxayaati dunya lu dul ay naxaate ci àddina si wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab ba pare bisum penc dinañ gis li gën a ñaaw li gën